yéenekaay yi ànd ceeg Pape Malick Thiam Pape Malick ban yéenekaay la ñuy tàmbalee tey. je dirais bi yéenekaay bu ñuy tàmbalee moom moo di quotidien euh, quotidien euh, wax ci lu nga xamante ni moom moo di wàllu yoon lan la ci wax nag moom moo di daf ne ba euh, Bassirou Diomaye Faye moom naneen la bëgg def fi wala naneen la gisee yoon ay jëf ay. Euh, li nga xamante ni moo di ay jafe-jafe ak ay wax yu sew yoo xamante ni ci wàllu yoon la am euh, journal bi mu ngi ñëwaat euh, ne dialogue bi naneen la ko defee Walf Quotidien ñëwaat tamit ci wàllu yoon justice ne ba Diomaye Faye fay moom mu ngi teggaat lu nga xamante ni moo di projet bi projet judiciaire ñoom noonu lañ ko tuddee di wax ci wàllu politique nan la ñu gisee li nga xamante ni moom moo di yoon défendre tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci état bi euh, l'info euh, di wax ni ñan ñoom ñoo ci euh, participer ci lu nga xamante ni moom moo di dialogue national bi nga xamante ni suba lay am ci yoon lañ ci wax magistrat yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy def politique ku nekk ku nekk jël nga ci ay ay kaddu ki nga xamante ni moom moo di Alioune Ndao Euh, nekkoon fi procureur moom nee na waa Benno Bokk Yaakaar woo nañ leen ci li nga xamante ni moo di dialogue national bi euh, te euh, ci moom moment bi ñi nga xamante ni ñoo nekk ci Diomaye président ñoom kenn waxu leen ci dara loolu ñi ko organisé teguñu ko fenn Moustapha Diakhaté ci biir journal bi ba léegi mu ngi wax ne. Euh, euh, constitution la ñu salfaañee Abdoulaye Wilane di ci addu di wax ne euh, au lieu Euh, Bassirou Diomaye Faye ak ñu mu àndal ñu wax ci lu nga xamante ni mooy dundu gu cher gi ñoom ñu ngi wax ci leneen loo xamante ne amulul kenn njëriñ bés bi le jour ñoom ñëwaat ci lu nga xamante ni moom moo di yoon ak dialogue euh, national bi nga xamante ni wàllu justice euh, lañu ko ci wàllu justice la soxal moom moo di naneen lañu koy defe di vice de procédure journal bi di wax ni ay jafe-jafe am na euh, loo xamante ni kenn mënu ko nangu ndaxte Clédor Sène euh, moom euh, problème lay andi ci woote gi nga xamante ne woo nañ woote nañ ko ci dialogue national bi bés bi le jour di ñëwaat ci nga xamante ni moom moo di ci dialogue bi baba professeur Babacar Gueye moom la ñu wax ne moom moom mooy yombal mbir mi ci diggante ñi nga xamante ni ñoo ci war a bokk dialogue national bi Vox Populi ñëwaat ne dialogue ni justice la ñuy càmbar ci lépp lu nga xamante ni moom moo ci Euh, tënku professeur Babacar Gueye euh, wax nañ ko sànq moom mooy yombal diggante yi journal bi tamit ñëwaat ci list bi nga xamante ni euh, ñoom moom la ñu xaatim mu ngi toll ci lu ëpp ñaar téeméeri lu ëpp ci ñaar téeméeri nit ñoo ci war a bokk journal bi ne am na ñoo xamante ni bind nañ leen ci liste bi loolu. andi na coow lu bëree bëri Moustapha Diakhaté sax ci coow loolu la addu euh, ci euh, biir euh, di wax ne di wax ne ci biir la la di wax dans les journal dans le journal Les Échos di ci wax ne mbir mi am na jaxasoo ndaxte ñoom dañuy indi li nga xamante ne moom moo di réeroo di nax ñi nga xamante ne ñoo di askan wi ndaxte dañuy invité kenn ku nga xamante ne moom moo rayoon euh, maître Babacar Seye loolu c'est en 1994 euh, te loolu ñu ko euh, fenn journal bi di wax ba léegi ne am na waa Union européenne ñu ngi accordé ay visa lu toll ci 300 000 état Sénégal le soleil ñëw ci lu nga xamante ne moom mooy di relation Sénégal ak Gambie mu ne mbir moo xamante ne mbir moo am solo ndaxte waxtaanee lu nga xamante ne moo di wàllu frontières yi waxtaanee lu nga xam ne moo di wàllu koom diggante Sénégal. ah ak Guinée ñëw ci lu nga xamante ni moom moo di Bassirou Diomaye Faye ak nga xamante ni moo di Ousmane Sonko moom enquête journal bi euh, mu fësal euh, Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko seen doxalin ci wàllu gouvernance ñu ne ñoom dañu def comme Mamadou Diallo mu doon def wàcc ci terrain bi di nemmeeku liggéey bi bu baax a baax wante loolu mën na am ay risques risques yi moom mooy su fekkee résultat yi ñëwul kenn du leen faale te critiques yi euh, bu ñu dinañu ko gis bu baax a baax ñu dem ci journal Sud Quotidien Sud Quotidien mu ngi ñëwaat ci lu nga xamante ni mooy jàng mi ak jàngale bi atum 2023 ak diggante atum 2023 ak 2024 lépp lu nga xamante ni am nay jafe-jafe ak saafara yi journal bi ñëwaat na ci L'As Quotidien moom moo ne fàng euh, photo ki nga xamante ni mooy docteur Fatou Diouf nekk jëwriñ ji yor wàllu euh, napp gi euh, lu ñu ko tuddee nag docteur Fatou Diouf ñu ne dafa mel ni ku jaxle lan moo tax ndaxte dafa am boo nga xamante ni mu ngi tudd Let's Bañas loolu yëpp euh, ñu ngi koy euh, dëxëñ ci biir euh, journal bi l'observateur di ñëwaat ci ay chiffres chiffres yi nga xamante ni mooy drogue diggante atu deux mille vingt et un ak deux mille vingt deux mille vingt et un deux mille vingt trois drogue bi nga xamante ni saisir nañu ko ñu ngi mu ne mi ngi toll ci. lu toll ci cinq cent quatre-vingt-seize milliards ci suñu xaalis di neuf mille tonnes yoo xamante ni euh, waa euh, ñoom euh, ñoo ko saisir ba noppi ci janvier bi ñu génn cent douze milliards ci buñu évaluer xaalis bi ci benn tonne drogue bu nga xamante ni euh, jëloon nañ ko mu ngi toll ci cent douze euh, milliards journal bi ba léegi mu ngi jagleel di jox kàddu gi nga xamante ni moo di euh, moo fi nekkoon jëwriñ ji yool nekk ministre des forces armées di Oumar Youm mu ñuy wax ci Macky Sall APR ak Amadou Ba Euh, Air Sénégal ñu ngi koy bind ci biir Source A ñu ne euh, ñi nga xamante ni dañu war a aj màkk ci atum deux mille vingt quatre bi ñoom compagnie Air Sénégal la ñu jël Air Sénégal moo war a yóbbu euh, ñi nga xamante ne dañu war a dem màkk siyaare ji Libération ñëwaat ci mbiru trafic ak multinational turc bi tudd Suma Construction nee nañ Suma Construction ñoo ñëw Suma Construction nag ñoom ñoo tabax ñi nga li nga xamante ne mooy aéroport Blaise Diagne Tchad centre conférence Abdou Diouf bu nekk Diamniadio ba ci sax Abdoulaye euh, stade Abdoulaye wadd ñu ne ñoom dañ leen épinglé ndaxte ñoom fay ñu impôt at ngi nii mu ngi toll ci 4 milliards ci suñu xaalis ñu jeexalee ko ci euh, quotidien bi nga xamante ne wàllu tàggat yaram lay wax mu di record record nag mu ngi ñëwaat ci Euh, entraînement bi nga xamante ni suñu gaynde yi dinañ ko amal tey ji euh, ci altine bi soxal qualification mondial deux mille vingt six euh, ñu ne nag am na ñu bees ñoo xamante ni ay joueurs yu bees lañu ñu ngi bokk ci équipe bi Aliou Cissé sélectionné leen loolu journal bi ñëwaat na ci bu baax a baax Aïcha Diaby lii moo gën a fës ci ci xëtu njëkk yi. ci altine ji 27 mai 2024. am na solo ba Malick ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay xaar nga yéeg fekk suñu fii ci plateau bi. léegi léegi. léegi léegi lay doon merci beaucoup à Pape Malick Thiam ñu ko ci xibaar yi euh, rawatina nag lu ñeel ëttu yéenekaay bu ko defee nag ñu gën a yaatal xibaar yi mbokk yi euh, fii ci plateau bi maandu ci Kajoor Cissé ci rubrique bi nga xamante ni moom lañu ñu duppee la revue web léegi léegi bu bàkk bi noppee ñu di kat ci plateau bi.